2 0 baax na ñu ah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant bu ñu nee la 14 août sa xel day dem ci journée bu mag bi nga xamante ne jam production moo ko organisé waaye jam ci biir 14 août bi daf ci boole ñaari xale yoo xamante ni diggante dër bi parcelle ak Pikine ba tey daf koo indiwaat xale bii di Dioum ak Boy Zil Dioum ñu fekk la fi jàmbaar ci sa préparation gaa yëpp ñëw dooleel la gis naa Papa Sow gis naa Franc Gora Sock ñëpp combat bi fan la la toll. avant ñu ñëw ci loolu dañuy wax gannaaw bañ sentee yàlla julli ci yonent bi sant sunu ñaari waajur di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaanal ñi dëddu yàlla xaare leen àjjana ñi tëdd hôpital yàlla fëgg seen bopp ak ñi nga xam ne dañoo tëdd seen kër yi amuñu lu ñu fajoo yàlla na yàlla fëgg seen bopp waa di ñaan daal yàlla def jàmm rek ci réew mi ci élection yi ñu jub tamit yàlla na ci yàlla def jàmm ñu def ko ci bisimilahi rahman gi génn koog alhamdulilahi rabil alamin eh? avant tout nag maa ngi nuyu waa parcelle un ba vingt six waaw di nuy waa écurie jàmbaar parce que bi ma fi ñëwee ba léegi waxuma la combat bi sax mais toujours dañ may ñaax xama taxawu nañ ma taxaw bu jaar yoon xama affaire yooyu noonu te loolu noonu du sama jàmbaar du sama dara xëy na da nga am ci man yéene rek di santaat na grand bi bu baax a baax aw ma fayam di sant Gora Sock ak Franc parce que su ma ñëwaatee ci làmb ñoom ñaar ñoo tax parce que dama tegale ay victoire kenn nanguwuma jël xam nga ma def année balance yu bëri affaire yooyu mais ñoom ñaar toujours dañ may encouragé naan ma ñëwal li ñuy def dàquñu la ko xam nga kon ah su ma suñ ma dékkee micro ñooñu war naa leen mën a sant. mais ñu ñëw ci combat bi dayu bi fan la toll ci yow diggante dër bi parcelle Pikine ba tey. waaw loolu moom yàgg naa am ay temps lan lañ doon wax Fass ak Pikine lañ doom wax hmm. ñoom rek ñoo fi nekkoon dër bi demoon na ba benn instant géejawaay parcelle xam nga loolu noonu day nekk ci ay période yoo xamante ni day tomb ak saison boobu ren saison bi parcelle Pikine la tombel xam nga ñun combat mënuñoo dépassé parce que yàgg nañ dugg ci biir géew xam nga benn bis rek jaaxaluñu xam nga xam na ñu ngi koy gérer te ñu ngi suñu ginnaaw staff tamit ku ci mel ni ñoom Suka Lato Balla Diouf Père Yaram xama nga waaw loolu la quoi affaire yooyu noonu. mooy adversaire bi. nee na moom lépp lu mu la bëgg a wan ci digg géew bi loola koy wanee parce que li la nit ñi yaakaare wala li nekk ci yow loolu newut ci yow waaw loolu sañ na ko wax parce que maa moom ñooy jëflante am na droit ñu dégg ay micro mu wax mais bu ñu tëjee géew bi foofu wax amu fa jëf moo fa am rek dañu ñaan yàlla may ñu ndam parce que aw ma lenn lu may wax ak moom parce que séquma ko moom fi ma nekk du sama place ci làmb boo gisee ñii Franc euh, Papa Sow daam seen gars yi yëpp nekk sa ginnaaw. Hmm. nga jëm ci combat bi du doon pression ci yow. non non déggoo li ma la wax man bis mënu ma dépassé xëy nag dañ ma gis nii rek ma kuul nii xam nga jàpp sama ñàmbur mais man maay bëre gars yi conseil rek lañ mën ak ñaax la ñëw taxawu la xam nga mais li yow bu arbitre bi sifflé xam nga lan moo la war ci combat bi gis naa waa parcelle xam nga seen taxawaay di sant nag waa intercept koñ bi nga xam ne fa laa juddoo yoroo fa di ñaanalaat suma turandoo yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak papay Franc xam nga ak képp ku dëddu rek ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm. caabi bi dafa réeroon waa Pikine. ci diggante Franc ak Sokh. Hmm. waaye daa mel ni jàppaat nañ ko ci diggante Petit euh, ak Sokh de sa diggante yow boo ñëwee fi mu toll noonu ci moment boobu lan nga mën a rassurer ñi nga xamante ni ñooy waa parce rawatina say supporters. waaw di masawu nag Petit Lo ak Dame Suguer xam nga li leen wax ay xale lañ nañ gën a liggéeyaat xam ne làmb moo demee noonu. nit boo doon may sa bopp. doo xëy di liggéey wala ngay xëy di entraînement da ngay denc sa ngeem ba jouru làmb ja nga takk sa ngeem dem bëre mais yàlla mooy maye ndam xam nga du seen ñàkku jom moo tax ñu daan leen wala dara dañoo bëree ba daanu xam nga làmb moo demee noonu mais loolu man bëriwaale wu ma loolu. bëriwoo loolu déedéet. bëriwoo Parcelles Pikine. non déggoo ma de fi may waxee dama ne la bëriwaale ma ni maanaam comme vengeance laay bëree yooyu. Ah, noonu si c'est normal parce que ñaa ah non non. waaw mun nañ ne derby la. Parcelles Pikine. derby la mais man damay bëreel pour sama bopp xam nga li ma su ma amee ndam nag waa parcelle ñoo am ndam xam nga affaire yooyu parce man parcelle nag moo ma ñor ñun xamuñu fenn fudul parcelle lu mu guddi guddi bu ñu génnee parcelle lu mu guddi guddi dañuy dugg si waat parcelle xam mooy loolu. boo Jules lan nga ko mën a dénk lan la fas yéenee lan nga mbébét ban mbébét nga am ci moom lan nga fas yéene jëflante ak moom bu arbitre ne prix bi yéen ñaar. lu ma koy conseillé daal mu jege saako yi. moom moom waaw mu jege saako yi. lu tax jege bu taxawee ci digg géew bi dinaa ko mu daanu. yow mi waaw bu bu bëre bu ñëwee song si ñu bëre nag lu mu bëgg ñu bëre ko moom mooy xool rek bu yeboo mu jege saako yi su ma nee xëpp mu génn saako yi ba keroog làmb ji di jeex. gis nga combat bi fu ko Ama Balde teg ak Zil Balde ak waa Pikine yëpp gis nga niñ ko niñ ko ñaaxee. waaw ñoom ñoo yenu bis mais ñun duñ yenu bis. ñun duñ yenu bis. kon ñoom dañoo yenu bis. yow bi nga ñëwee loo ñu gis ñuy def ñun ñëpp dañuy contact suñu biir. amul rock énergie amul dóor dóoraat amul parcel mbooloo ñëpp dañuy contact seen biir mais Pikine loolu amu fa. lu tax ah xoolal rek yow da nga leen mës a gis ñuy contact ci seen biir. ah soq Franc ñoom ñëpp génn nañ ba léegi teguwuñu seen tax. non Franc tas na ko deux pour cent la kii la woon waaye deux cent pour cent la woon. mu tas ko. instant bi cinquante pour cent fa des rek. mais récupéré nañ seen deux cent pour cent. parce que daan ba léegi ñoo raw. Hmm. waaw. lamb la rek. di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam di sant suma meeru koñ yëpp ak booy yi xoolal booy yu ndaw yi ay xale yu ndaw lañ interset lañ joxe ba fii xam nga hmm. waaw instant bi man daa am ñaar yu may bërewaale. muy relève Moussa Dioum man maa ko yor. Hmm. beneen bi damay bëree ci turu Moussa Dioum xam nga affaire yooyu noonu tey ñi doon supporter Moussa dëgg la sax ñoo bokk koñ mais ñi ko doon supporter ñëpp dañoo ñëw ba suñu kër na ma instant bii nii dëgg la Moussa Dioum nekkatu fi mais jàppal ni instant bii nii Moussa Dioum mi ngi fi ba léegi xam nga te loolu noonu dafa nekk ñaax boo xamante ni xam nga ñun ñëpp moo jàngal bëre muy Franc di Obali di Oninga ñun ñëpp moon jàngal bëre li nekk ci ñun ñëpp moo ko def kon bu ñu tiimalee micro li ñu war mooy ñu koy sant di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana ak mboolem jullit Franc ñëwal Franc doo yëg waaye lan ngay wax ci combat bi parce que yaa ubbi baal bi diggante Pikine ak ak ak jàmbaar yow yaa ko ubbi jox say booy mais gis nga ba tey Pikine ñu ngi dabu ji pour ñëwaat ngeen ngemb euh, jum de nan ngeen fas yéene demee arène nationale. affaire yi moom sport la rek xam amul ay Pikine ak amul ay paase ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. Hmm. mais luy l'essentiel bi ñu ñaanal suñu xarit suñu doomu ndey suñu mbër. Hmm. yàlla may ko ndam quoi. Hmm. xam nga adversaire bi moom. waaw champion la comme yenn adversaire rek. lan la war a mën a moytu ci moom. non nañ ko jox cër jox ko lépp lu moom ba bés ba rek ñu ñëw appliquer quoi yàlla may ñu ndam. xeex wala bëre lan loolu bu bés ba bu bu bés ba coach ci wax coach yi ñu ëpp expérience ñoo ñu ëpp daal doo ci wax dëgg. non non bu koy ñaan yàlla may ko ndam rek. ñu lay jaale bu baax sa papa. ndeysaan dégg nga li Franc wax ana Papa Sow. waaw moom. papa moom sama booy la. papa ñëwal xam nga moom sama boy la. voilà xam nga rek moom dafa màggee ci écurie parcelle mbooloo ñu bari xamuñu loolu. moom carrière am yëpp bëre la ko def. bi muy toll nii Moussa Dioum Sa Thiès moo jëli woon ngemb yi chaque ngoon moo doon jëli ngemb yi nekk boy bu ndaw xam nga mm, mm. te am na ci man yéene tamit du dugg loo xamante ni yëkkatiwul téléphone am woo ma wax ma ko même buñ koy doxal combat sax dina ma ko wax. kon kooku noonu bu la joxee cër boobu. Mm. xam nga yow da koy fexee delloo loolu. xam nga parce que fii moom ñun ñëpp ay champion lañ kenn dàqu fee bëre kenn xama mais nañ yéenante jàmm rek ñu ñu bañ a génnee li nekk ci kanam yi ñu génnee li nekk ci xool yi loolu mooy àdduna xam nga ñu bàyyi yenn détails yu sew yi wax yi sew yi xam nga waaw ku ñu xool nii xam ni ñun dañoo booloo fii amul sens interdit heure boo ñëwee wane yar ak teggin gars da dañ ak accueillir nga contact affaire yooyu noonu amul du ma contact ak diw amul lii amul lii suñu grand bii lañ toog fu mu ñu ne jaar leen nii ñun loolu la ñuy def bu ñu nee bàyyil mu bàyyi xam affaire yooyu man ikiri jàmbaar gënu ma fee doon jàmbaar ba yëkkati combat jox ma xëy na tamit di sant tamit waa ikiri bi ma nekkoon muy parcelle mbooloo. am na solo léegi xaaral ma ñëw ci papa. papa actuellement gis nga diggante dër bi parcelle ak Pikine bëri ngeen keroog gis naa la sax ba nga ñëwee arène arène nationale mais dafa mel ni papa beneen papa Sow laa gis xale yi bu ñuy bëree nan ngay def. waaw mais c'est normal c'est normal maa ngi nuyu ñëpp ah di nuyu internet yëpp di leen jaajëfal nag tamit quoi waaw mais c'est normal làmb moo toll foofu tey jii ba waa parcelle gis naa keroog booy jël ni ko gars yi keroog vidéo bu mu def macha allah mais nañ xam ne ñoom ñoom bu ñu ci ëppale. Hmm. le 14 août parcelle kenn du des di nga def parcelle Cambérène Grand Médine Patte d'Oie ba Yoff boo yëpp dañuy mobiliser ñëw incha allah soutenir sa waay. Hmm. waaw derby mooy loolu mooy mooy tëj te mooy tëj. mais Pikine daa mel ni caabi bi parcelle da ko yoroon mais daa réer Pikine. non keroog keroog lu fa jëlee keroog deux un lañ fa jëlee su ma jumulee de ah. waaw kon ñoo yor caabi ji de. ba tey rappelé leen def la quatorze incha allah. boobu dina xeex. ah non kan kan dina xeex Dioum. Ah. non man kat dama ne Boy Jules la yokk xeexam laa yokk Boy Jules. Dioum moom combat bi day xeex moom moom combat moom jàppale moom bëgg xeex bañ xeex bëgg xeex bañ xeex ba teew jël daam di ko ñaan di ko ñaan ndam nag boobu yarul la nit ku disponible la hmm. ku neex a nekkal macha allah. Hmm. lan nga waa Pikine def mobilisation rek keroog comme combat franc ak Sokh nu mu neexee. Hmm. combat Sokh de ak Amir Lo gis nu mu neexee. daam seen bi mooy dàq. waaw mooy tëj bi mooy tëj mooy dàq. ñëppay ñëw parcelle yi kenn du des. champion ñëppay ñëw ànd ak sunu gars yi indi leen incha allah rabbi loolu moom kenn du manqué ba cambré na ñëpp nag. waaw ba ba fajaa kenn du manqué a ñëw incha allah. jum ñu ngi lay nga may ma woote nag. di woo suñu président Ikiri suñu père Mamba. Hmm. ak doomam hmm. Mansour. Hmm. di woo Go Faye réaction xam nga di woo Guèye l'original. xam nga di woo Abdoul Agne Maymuna ñu ngi koy woo Amadou Ba tamit ñu ngi koy woo. ak sunu grand Babacar Guèye. xam nga ñu ngi woo daal ñëpp woo sama waa dëkk nag waa Kajoor. di ko dalee Pekes Njaxalaan Lukub Laxasoo bégal di woo waa Gàmbi fi sama yaay nekk xam nga waa Karanta Ba ñëpp maa leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi xam nga yàlla suturaal ñu may ñu ndam xam nga di woo Del Bosque limaamu meng xam moo yor centre formation Del Bosque hmm. affaire yooyu noonu xam nga xam ci mbër yi man dong maa ciy déggante ak hmm. Del Bosque man dong maa ciy déggante ak moom téléphone sama ndijaay dafa fubal Real Madrid g Atlético hmm. waaw kon man su ma neexee bëre su ma neexee fubal ñu koy waaw di sant waa mafia kàcc kàcc bi ñu ngi nii sama ginnaaw. bi combat bi amee ba léegi nelawuñ di sant suma booy bi nga mooy président fan si club bu Moussa muy Bour Guéweul ak Petit Zo Abdou Khadir Doux nga xamante ne moom xamee nga ko saa waa parcelle di bëre day jaayante ñëw. billahi walaay kii bu ñëpp meloon ni moom amul benn problème. billahi di ñaanalaat waaw. t bi t-shirt bi. jam moo ma ko sponsor bi ñu waaw ñu ngi woo tamit yeneen sponsor yi ñu ñëw jàpp ci. xam nga rek waaw parce que Jamaïcain tey jii nii parcelle dafa bëri ay mbër xam nga te Jamaïcain mi ngi def effort yàlla xam na ni saison bi mu ubbee ba léegi mu ngi may lijjantil komba mais ñun dañoo nekk mbër yoo xam dañoo naqaree wutal adversaire te suñu tur àggul fenn fi quoi xam nga mais loolu yëpp sant yàlla di sant nag mbëru parcelle yëpp di sant mbaate Faye xam rek moom borom baax la. ama rek affaire yoon waaw. ndeysaan sponsor bi jamono koy gërëm tuuti choc ñu koy jaajëfal bu baax macha allah di ko di di ko kontaanee bu baax a baax mbokk di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen ay demal bu xool